duñu deñ di ñaan yàlla suñu boroom xéewal ya nekk fa moom yal na bu ñu ko yàlla xeñ ñu ngi koy ñaan yal nañu ko yàlla dottil suñu réew yal nañu ko yàlla may si suñu territoire yal nañu ko yàlla may mboolem fu doomu aadama nekk fii mashariqil ardi wa magharibiha ñaan yàlla suñu boroom di ko ne allahumma anta salaamun wa minka salaam ilayka yacuudu salaam fa xayinaa bisalaam wadxilna aljannata daaraka daaru salaam amin ya rabbal alamin yàlla mi man lañ ko ñaan ni yàlla nañu ko yàlla boole defal amin ya rabbal alamin ndax mboolem xeetu yiw mboolem xeetu jàmm fa yow yàlla lay bàyyee bu ñuy dellu tamit fa yow yàlla la ñuy dellu kon ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may ñu dund ci jàmm keroog bés pénc yàlla nga ñu may nga wërsëgal ñu tàbbil ñu këri xéwal ba nekk fasa sa moomeel te mooy këru àjjana amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne tem bañ doon waxtaan ak yéen ci ay fan yu weesu mooy te mu xam-xam mooy ngénneelu xam-xam ak ngénneelu sakku xam-xam fadlu talabil ilm min al wa sunna da di li nga xamante ne ngénneelu sàkku xam-xam ba ak bañu alquraan joxoñal waaye sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa tegtal ñu ko ci anam bi nga xamante ne mooy anam bu gën a leer ñu nit ñu am astuut lu ñu xëcc ci alquran andil leen ko ci daara ji ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ngir ñu fas yéene ko nab ñook mboolem auditeur ña ñuy bàyyi xel ci waxtu wi waxtu ya ñu toog di ko waxtaan ñan nañu ko yàlla defal xasanaat fil waaye yéen mi toog seen kër di ko déglu di ci taataan yan na leen yàlla defal yiw yan na ko yàlla sotti mu doon xéewal seeni téere yi jëf ndax dañ ne bés penc lu du yiw yiw ko gën lu du tiyaabo tiyaabo ko gën kon nuñ ko mun a sàkkoo ak fañ ko mun a sàkkoo ak ñan lañ ko war a mën a àndandoor ñu sàkku ko bu ñu gisee opportunité bi ni mel buñ ko sàggane ndax ñaari appareil yàlla yàlla mooñaale di say nopp joxu la ko rek ngir nga di si taaro joxu la ko ngir nga di si takk ay bijoux di si takk ay or ak ay jaaro waaye dalakaa jox ngir nga di si déglu sama waaw déggukaay léegi-léegi nag ñu jëfandikoo ko ñu di si taaro waaye yàlla mi ko mooñaaleeg doomu aadama bi dala kaa ngir nga di ci dégg di ci déglu kawtifam ak waaraate ak yeete ak lépp lu lay moytandikuloo jëfu seytaane ak lépp luñ la mën a wax loo xamante ne mën na laa war a mën a wamat jëmale la ilaa maa yuhibbuhu llahu wa yarda ci lépp lu yàlla bëgg mu doon la mu gërëm moo tax yàlla baranse la ñaari nopp ngir ngay dégg lu bari di déglu lu bari mu baranse la benn gémmiñ dafa benn làmmiñ màndarga bi mooy na sa wax néew na sa déglu gën a bari ndax li nga war a dégg nga war a jàng nga war a déglu ci xeetu xam-xam moo gën a war a bari te moo war a bari ka la ngay wax waaw benn gémmiñ benn làmmiñ kon wax bi na néew bu dul ñàkk na tuuti waaye ñun sens contraire bi moo nekk suñu réew waaw ah, ñun daal dañuy wax ba giix waaw ah, te wax bi daal boo ci tànn la si la si la si lu wér ah bu motee la mu baaram tamit di ko weesu yàlla ñu yàlla yërëm mbokk yi xam ngeen ne bokk na ci melokaanu jullit ci penc bi buur yàlla suñu boroom subhaanahu wa mu wàccee ko ci yonent bi mu yónn ci xeet wi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima ngir li yuxrija annaas min adulumaati ila nuur mu jëlee nit ñi ci liiraayu bokkaale ci lëndemaayu bokkaale ci lëndemaayu riir jëmale leen ci leeru wéetal yàlla ak leeru xam-xam ba tax na yàlla mi xam la wara a ñoŋal jullit boobu bàyyiwu ko boppam bàyyiwu kook noonam di seytaane waaye dafa am professeur bu mu ko yónni di yónnent ba nga xamante ne dakaa joxaale téere ngir bu ñëwee mu jàngal ko téere boobu ndegam téere boobu mooy catalogue bay won doomu aadama bi nanga war a dundee ci kaw suuf si ana lan mooy ndigle yi nga war see war a mën a jëf sa kémtalay kàttan waaye ana lan mooy tere yi nga war kaa war a mën a sore kon semaine bi ñu waaj a dugg si nii ñu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may semaine ba ñu tàmbali ni ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim yal nañu yàlla may ñu génn si ci alhamdulillahi rabbil alamin ndax xam ngeen ne saa su ne dinañu ñaan yàlla mu may ñu ñu tàmbali ci semaine bi ci bismillahi rahmaani rahim waaye ñu dugg si ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye bi léegi ñu ñaan ko ñu jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ndax mooy buur bay tigg mbir yi fa moom moo tax mu ne ñu yu amra min as-sama mooy buur bay organiser mooy buur bay créer mbir yi fa moom ci kaw asamaan si waaw su ko defee mu dal di ko wàccee dundu doomu aadama yi mën a ñoŋ lay xew-xew ba keroog ñuy gis da nga xamante ne moo méngoog suñu bëgg-bëgg waaye xëy na tamit léeg-léeg ñu gis loo xamante ne day méngoog la ñu bëggut te loolu mooy lu soob yàlla ndax mbir yi ci loxoom la nekk waaye ndegem ñu ngi koy ñaan ñu dugg ci alhamdulillah bismillahi rahmaani rahim ñu nekk ci ci alhamdulilah rabbil alamin waaye ñu war see génne tamit ci alhamdulilah rabbil alamin bu nangoo suñu ñaan yi ndax moo ne ñaan leen ma mamee leen ko defee fekk ñu koy ñaan mu meñu semaine ba ñuy tàmbali ci jàmm ñu nekk ci jàmm war see génn ci jàmm ndegem nangul nañu suñu ñaan boobu amaana ci biir semaine bi duñu jànk wante dara loo xamante ne ay gàllankoor la yal nañu yàlla musal ñu ga ñu ay gàllankoor yu doon mën a nettali fen waaye yal yàlla may buntu xéewal ci semaine bi yal nañu yàlla may semaine bi nga xamante ne dañ ci dégg jàmm di si dund jàmm jàmm boobu di law incha allah yàlla mën na ko sañ na ko yal nañu ko buur yàlla defal amin ya rabbal alamin mbokk yi bokk na ci organisation bu buur yàlla organisé tëralin bu buur yàlla tëral ne yow doomu aadama bi rawatina yow jullit bi doxali na ngi nii fekk yaa ngi koy doxal dinga am jàmm fii ci àddina waaye keroog bés pénc boo dajek man mi di sa boroom bu ma lay dugal biir àjjana di nga xam ne li ma la digal fii ci kaw suuf si nga di ko jëfee keroog boo ñëwee fa man yàlla ah di nga ànd ak waa àjjana di dund dund bu neex dund bu ngay dund àjjana nag buur yàlla mu ngi ne moom la koy xemmem loo mu di la ko baaxee mu ne na nga def entraînement bi fii da nga comporté woo comportement bi fii na nga manifester système de vie bi nga xamante ne moom la waa arjana di dund ci biir arjana na ko tàmbale fii bur yàlla jàngal la ko won la ko yonent bi ñëw appliquer ko mu di ko pratike ci sa kanam alquran bay ko fi ñu di ko jàng ci téere yi moo si njàngum téere bi rek la yem te duñ ko pratiquer tontu bi kenn ku nekk war na kaa war a mën a tontu ba tax na Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar ba ngeen di amak ñun ci waxtu bi ci daara ji ñu nit ñu fas yéene leen xëccal lenn ci dundu arjana woowu yàlla rëdd ci alquran yonent bi jàngale ko fi bàyyi ko fi alquran nekk ak moom fi ñu nit ñu jukki leen dundu boobu nu muy demee keroog bu ñu yàlla wërsëgalee ba ñu tàbbi këru xéewal ca arjanna ñuy dund dunduwaa waa arjanna waaye lu jiitu loolu nag fii lañ ko war a mën a appliquer na ko yàlla gis ne ñu ngi koy appliquer fii moo tax bu ñu demee xool ca suratul ibrahim ñu gis fa qaala allahu taala wa udxila alladina aamanuu wa camilu lsalixaati jannatin tajri min taxtiha al anhaar xaalidiina fiiha bi idni rabbihim taxiyatuhum fiiha salaam sadaqa allahu alazim mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot saar bañ naan suuratul ibrahim buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi ni di àddu ci aaya bañ leen jukkil ni sànq buur yàlla ne wa udxila alladina aamanu dinañu dugal woy gom yàlla ñu gëm yàlla wa amilu saalihaati ñu toftal ci gom yàlla bi jëf ju baax fan lañ leen di dugal ana fuñ leen di dugal mooy jannaatin ci ay toolu arjana yi nga xamante ne tajri min taxtiha al anhaar dina daw ci ron etaasu arjana yooyu ay dex yàlla nee na xaalidiina fiha xaalidiina fiha ci biir arjana boobu la ñuy sax bi izni rabbihim ci seenu ndigalu boroom la ñuy saxee ci biir arjana kenn du leen fa génne te kenn du leen def la ñuy génn foofu bur yàlla ne taxiyatuhum seeni nuyoo ci biir arjana woowu taxiyatuhum fiiha seen nuyoo ba ñuy nuyuwante ñoomi neen ci biir arjana woowu du lenn du dara du baat yañu miin di ko dégg fii ci àddina du baat yii de baat yañuy nuyoo ci biir arjana mooy baat yu jullit yi di nuyoo seeni biir ñoomi neen salaam jàmm ñoom jàmm mooy doon seeni nuyoo kon nga gis ni jullit bi yow mi fi nekk di nuyoo ak sa mbokku jullit assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa lii boo ko tàmmalee sa bopp nga tàmmal ko sa ruux ba dee fekk la ci ngay faatu fek yaa ngi nuyoo nit ñi assalaamu aleykum wa rahmatullah bur yàlla ne yow tàmmal nga sa bopp nuyoo waa arjanna yow tàmmal nga sa bopp nuyoo arjan kon bu la yàlla wërsëgalee bi nga tàbbi ki lu xéewal ba ñu naan arjan nga fekk fa waa arjan nga di nuyoog ñoom nuyoo bi nga doon nuyoog jullit ñi fii ci àddina bu mu la bett te loolu la yàlla digal su ko defee loolu nga wéyale sa dund bi keroog dee fekk la ci mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu taxaw tuuti xool ana yan critère moo war ba yàlla war laa gërëm yërëm la jéggal la tàbbil la kiru xéwal ba nekk fa moom te mooy ar arjan critère bu njëkk bi mooy buur yàlla daf ne wa udxila alladina amanu dinañu dugal gaay yu gëm yàlla ci sama jaam yi gëm yàlla bi nag gémmiñ moo koy tudd waaye xol a koy fas cër yi di ko jëfe maanaam xol bi day fas ci biir xol bi nga war a fas ci sa biir xol yow jullit bi yàlla kenn la doo ko bokkaaleeg lenn doo ko bokkaaleeg dara amul dara ci mbindaafooni yàlla yi la nga war a mën a dendaleeg yàlla kooke jàlla wa ala moom dong la waaw boo fexe ba xàmmee la qul huwa allahu ahad di tekki la allahu samad di tekki lam yalid walam yuulat la muy tekki nga xam ko wa lam yakun lahu kufuwan ahad la muy tekki nga xam ko yow yaay ki gëm yàlla wéetal ko ci moomeelam wéetal ko ci yàlla ba mu doon di yàlla wéetal ko ci turam yu set ak turam yu sell ñi yaay ki gëm yàlla gëm yàlla bu yàlla reconnaître waaye gannaaw si ñoom ñooy wa amilu saalihaat ñooy gannaaw góom yàlla ba ñu gëm yàlla dañ ci toftal jëf ju baax bokk na jëf ju baax ji ñuy toftal ci seen góom yàlla yi mooy amir bil maaruf wa nahi munkar digle lépp lu baax waaye tere lépp lu ñaaw bu dee seen cër yi dinañu jëf-jëf ju baax bu ñu jëfee rekk nga xam ne ñii ñu góom yàlla lañ bu dee seen làmmiñ dina wax wax ju baax bu ñu waxee rek nga xam ni ñii ñu gëm yàlla lañ bi maanaa la seen xol ëmb cër di ko manifeste du doon lenn lu dul amalu saalix waaw ci gëm yàlla wéetal ko ci moomeelam ak yàlla bu mu doon yàlla nga wéetal ko ci loolee nga wéetal ko ci turam yu sell ñi nga toftal ci jëf ju baax kenn du la dégg fu ñaaw kenn du gis ngay jëf lu ñaaw kenn du gis ngay wax lu ñaaw boo ko waxee tamit dangay gaaw walantu tuub am rëccute ba ngay manifester lu tax nga def lii lu tax nga mel nii walla lu tax nga wax lii xeetu rëccute yooyu ngay jëf ngir effacer bàkkaar yi nga jëf sa jëf ju baax ji nekk fi di sax di wéy ak yow ak sa ngëm yàlla yàlla ne ñu mel nii ñu mel ni ñi mel nii ñooñu lay dugal arjana wa nga xamante ne tajiri dina daw min taxtiha al anhaar ci suufu etaasu arjana yooyu ay dex xaalidiina fiiha bi izni rabbihim fa la ñuy sax dàkk ci seen ndigaru boroom nag bur yàlla ne lay doon seeni nuyoo ci biir arjana boobu du doon nuyoo wi nga xamante ne ñun nuyoo yooyu lañu ñu favoriser ah nuyoo yoo nga xamante ne moy nuyoo occidentaux yi léegi nga gis gaay yi ndeysaan yàlla leen yàlla yërëm waaw ah, ne la nuyoo waa arjana taxiyatuhum fiha salaam nuyoo waa arjana mooy asalaamualeykum yoo nga jël nuyoo boobu teg ko fii ni tege ngay yëkkati ay baat di xuural ay baat di wax lu kenn xamul nuyoo bi nga xamante ne nga ne yii yaay ab nuyoo la waaye baat la boo xamante ne dangeen koy jolla sant rek danga kay wax mu delloo la ko kenn ñaanul sa moroom dara ñu ne baat boobu noonu moy nuyoo ñu civilisé ñi ñu ne baat boobu mooy nuyoo nandite yi ñu ne baat boobu muy nuyoo ndaanaan yi eh, yéen da ngeen de wallahi la azim buñ ko waxee ak buñ ko waxul léegi-léegi nga gis kilifa diine walla kilifa àddina mu taxaw ci kanamu mbooroo mu am komplex bu toll nii ba mu ne assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu déet léegi-léegi nga gis sax ñoo xamante ne bu ñuy présenté lenn ci ay xibaar ay journaliste wax baat bi sax da leen di da di diis <laughs> mais subhaanallah ñàkk xam dara day tax nga xañ sa bopp yiw yi si meñ mbokk yi ana moo gën ñu ne la nuyoo waa arjana tahiyatuhum fiha salaam tahiyatuhum fiha salaam nuyoo ba ñuy nuyu ci biir arjana mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah mooy yann jàmm yàlla nekk ci yow nuyoo boobu nga teg ko fi ne tege nga ni ji yaay yow nandite nga ku civilisé nga ndaanaan nga taalube waa occidentaux nga nga jël nuyoo bala yàlla jox yonentu bi ngir nga jàng ko nga mun ko wax ko rek mu doon ñaan ànd loolu ñu bindal la jiw nga jël nuyoo boobu teg ko fee ña la imposé seeni nuyoo nga jël loolu def ko doon topp boo toogee ci plateau yi doo wax nuyoo jullit ñi buñ la joxee mikoro doo wax nuyoo jullit ñi koo romb doo ko nuyu nuyoo jullit ñi nuyoo bi nga xamante ne njëlbeenu phrase bi boo ko waxee ñu fay la fukki yiw boo waxee phrase bu digg doomu bi ñu fay la ñaar fukki yiw boo andee phrase bu ñetteel bi mooy bu matale bi ñu fay la fanweeru yiw nga ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu bind la vingt point astafurlah point nga wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ñu bindal la point boo andee phrase bu matale bi yëpp ñu bindal la trente point ñaata at nga dund ñaata yoon nga fekk nit ñi nuyoo leen nuyoo bi ni mel nuyoo nag joxe loxo bokkul de Sénégal fii nag léegi-léegi dañu naan ah nuyoo mooy joxe loxo or ko joxe loxo loolu mooy te mooy sa loxo ak sama loxo ñu ne taj ñu roofoo nga gisam ma gisam wala ñu roofoo après ñu téye kenn ku nekk téye sa loxoy moroom waaye nuyoo mooy asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu na jàmm yàlla nekk ci yow ak yërmandem ak barkeem lii ana ban làkk moo koy nuyoo nii ana ban làkk muy nuyoo nuyoo bi ni mel amul boo amee tamit man de xawma ko moo tax yàlla ne taxiyatum fiha ñama ne ñu lay dugal arjana ak ñu am kiriteer nga xamante ne dañoo gëm yàlla gëm yàlla bu wér boo kaale wuñu yàlla dara ñu toftal ci gëm yàlla bi amalu saalix jëf ju baax yàlla ne ñooñu lay ñu lay dugal këru xéewal ba nekk fa man yàlla di arjanna te day daw dinañu daw min taxtihal anhaar ci suufu etaasu arjana yooyu ay dex xaalidiina fiha bi izni rabbihim fa la sax dàkk ci seen ndigalu boroom yàlla ne taxiyatuhum fiha salaam ni yow ba ñuy séq ñoomi neen du doon benn baat lu dut assalaam mooy yan na jàmm yàlla nekk ci yéen mbokk yi ba léegi boo ñu demee xool ca suratu yunus dinañu gis qaala allahu taala dacwaahum fiha subhaanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaam wa axiru dacwaahum an alhamdulillahi rabbil alamin bur yàlla ñu subhaanahu wa taala ca suratu yunus waa arjanna de da'waahum fiha subhaanak woote ba ñuy woote kenn ku nekk buy woo sa moroom danga naan kenn ku nekk buy tudd yàlla danaan subhaanaka allahumma yàlla ne loolu moy doon sen woote ba ñuy woote wante àddina fii boo amee numéro téléphone kenn ci say xame bala joxee numéro bi même porte quel téléphone boo ko dugal boo koy composé foog nga def numéro indicatif boo koy composé bu dee ci biir senegal nga nekk il faut nga def njël njëlbeenu ñaari chiffre numéro bi nga xamante ne fa nga jëndee carte lañ ne ñaari njëlbeenu numéro yi day mooy tax yeneen numéro yu topp ci ginnaaw ñu mën a jàll il nga composé njëlbeenu deux chiffres yu njëkk yi kon yàlla nee na waa àjjana tamit sen woote wante ñoomi neen mooy subhaanaka moo tax yàlla ne daawaahum fiiha lañuy woote wante ñoomi neen ay da'waahum fil janna tasbih subhaanaka allahumma wa taxiyatu llahi wa malaikatahu lahum wa taxiyatun baadan fi ljanna salaam wa axiru du'aaihim qawluhum alhamdulillahi rabbil alamin shukran wa sanaa lillahi xaaliqun maxluqaatin allahu akbar moo ne tafsir bi bur yàlla suñu borom tabaraka wa taala gannaaw si daf ne gannaaw bu woote wante ñoomi neen ci biir arjanna mooy subhaanaka allahumma settak ca laa nge ñeel na la bur yàlla yow mi di buur wa taxiyatuhum fiha salaam seeni nuyoo ñoomi neen mooy salaam jàmm jàmm lañuy ñuy wante jàmm la ñuy nuyoo ñoomi neen ci biir àjjana du bokk suñu nuyoo yu ñu nuyoo fii waaw nuyoo yi nga xamante ne kenn ku nekk yaa koy nuyoo ci sa làkk waaw ñu bàyyi suñu lakk sax dem jéggaani benn nuyoo feneen te loolu kenn du ko wax te bu dee tamit diine nga jéggaane feneen nga ñëw andi ko mu doon njàngale yonent bi ñu di la xoolee beneen bët te moone am na lu gaay jéggaane feneen yeneen baat te kenn waxut kenn du si wax boo ci wax sa kenn du la faale waaye diine moom nuñ ko fekkee mu doon lu xobidaas moom nañ ko bàyyee noonu bu ko kenn laal bu ko kenn sang bu ko kenn raxas bu ko kenn fóot bu kenn andi njàngale yonent bi boo koy andi tamit waaw ah, doy na war la bur yàlla ne wa fii fiha seeni nuyoo ñoomi neen ci biir arjana bi mooy assalaam yal na jàmm nekk ci yéen yàlla defal jàmm wa axiru daawaahum seen mujjanteelu ñaan ba ñaan wala seen mujjanteelu woote ba ñuy woote mooy an alhamdulillahi rabbil alamin mooy sant ngërëm ñeel na buur bi nga xamante ne mooy borom bi ndaafoo mbokk yi tafsir bi nee na ay duaauhum fil janna at tasbih moo ne seeni ñaan ba ñuy ñaan ci biir arjana mooy sàbbal yàlla mooy subhaanaka allahumma se teg ca yu kawee ñeel nañu la yow buur yàlla wa taxiyatu llahi wa malaikatuhu lahum wa taxiyatu baaduhum baadan fil janna nuyoo ba leen di nuyu ak nuyoo ba leen di nuyu mooy nuyoo ba ñuy nuyoo ñoomi neen seen diggante ci biir àjjana salaam jàmm wa axiru duaauhum qawluhum seen ñaan bu mujj ba ñaan yàlla ci seen baat ci seen kàddu ba ñuy wax mooy alhamdulillahi rabbil alamin sant mboolem cant yu kawey mboolem ngërëmaande yu am dayo yi ñeel nañu yàlla ay shukran wa sanaan lillah xaaliqul maxluqaat mooy sabal yàlla ak bàkk ko tagg ko ndax mooy buur bi nga xamante ne mooy yàlla bu bind mboole mbindaafooni wa murabbiha mooy kaleen tàggat teg leen fa ñu war a tege yar leen ci anam bam ko soob waaye nag mu def ko bi yi ci xéewalam ndegem lii mooy baat bi nga xamante ne waa arjanna lii lañuy saxoo di ko wax ñoom yi neen seen diggante kon yowak man ak ki ñuy déglu ak ki ñuy waaj a déglu nañ leen jël nuyoo bi inculquer ko suñu dund ñu géem a koo entraîner suñu ruux ñu xam lu muy tekki ñu xam fa mu jógee ñu xam lu muy wundu ndax yàlla moo ñu ko wax taxiyatan nuyoo la min indillahi fa yàlla la bàyyee ko mubaarakatan mu doon nuyoo bu fees dell ak barke tayyibatan mu du nuyoo bu tey dagan kañ lañ koy wax nag mooy lañu yàlla wax ci suratu nuur fa ida daxaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan buur yàlla ne ñoo fa ida daxaltum buyutan bu ngeen duggaatee ci dëkkuwaay bu dee da dugg ci dëkkuwaay ci néeg yi fa sallimu na ngeen nuyu ala anfusikum seen bopp fa sallimu na ngeen ñaan jàmm ala anfusikum seen bopp na ngeen ñaanal seen bopp jàmm na ngeen ñaanal seen jëmm yi jàmm na ngeen ñaan yàlla mu xéewala leen xéewal nga xamante ne mooy jàmm taxiyatan da di nuyoo bi nga xamante ne min indillahi fa yàlla la bàyyee ko mubaarakatan mu doon nuyoo bu fees del ak barke tayyibatan mu doon nuyoo bu teyte dagan yal nañu ko yàlla yombalal yal na ko yàlla jàppandalal ñu sax ñu nuuru si taq ci rib amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi saa ili na mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa man zakkaha anta waliyuha mawlaha fa nicma almawla wa nicma aminna fi awtanina waslih aimatana